Assalamualaikum amis internautes Kebemer TV. Après une pause bien méritée, nous sommes heureux de vous annoncer le retour d'Actu Navetan pour une nouvelle saison pleine de passion, de compétitions et de moments inoubliables. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue, amis internautes Kebemer TV. Nous Comme toujours, nous serons au cœur des Navetan, vous apportant les dernières nouvelles, les résumés de matchs, les interviews exclusives et bien plus encore Taïna nag mu le 29 nag mu doxoon ci Espoir ASC yakargi. Euh, à partir de 18h le coup d'envoi a démarré ci que les bleus aIC Espoir et les jaunes bleus ASC yakargi. Dame ndam Demoul, ndam de de témboo kenn ku ci dame sa morom ñetti bal ci dara ci première mi-temps la tamit dadi Dougalat, 2-0 euh, dadi Dougalat Espoir football giant. ko fin Euh, ci la am benn bi waaye ci lañu ñu dawalaat tuuti ASC Espoir amaat penalty daal di koy dugal mu nekk 3-2 ca ca pandaw ga nag ca la ASC Espoir amaat dernielle bi mu nekk 3-3 ñu déglu coach su ASC yaakaar gi. avec le coaching Diop de l'AC Yakari qui euh, malheureusement donc, vient de faire euh, donc, 3 buts partout donc, euh, contre l'AC Espoir. Alors on gagne depuis le début, donc première mi-temps, bien le Borom. 3 buts à 0, Dembe 3-3. Franchement donc résultat beau Yakarna donc warul def sa satisfaction. waaw sant sant bu a baax waaw maa 3-0 yàlla kii ñu tourné waat ñu 3-3 mais je suis sant yàlla parce que euh, arbitre match bi gis nga ni mu sama jour tëdd na fee dernière minute sama jour tëdd na fee dernière minute yi ñu ni ko xoolal kay fi mu tëdd nu joué arbitre nu joué te amul jour bi xamoo dafa fatt xamoo lu dal jour bu tëdd ci terrain kay dafa gaañu yow arbitre arrêté match nga dem nga dem xool jour bi ba xam lan la mais nga ni joué ñu ñu dugal ñu nga pare nga tas match bi loolu loolu lan loolu lan lay nduróol loolu sabotage lay nduróol sabotage parce que bu ma lii lii nii lii sabotage lay moo tax mais ñi ngi sant bu baax a baax préparé nañ suñu match yàlla baax na 3 3 nañ préparé suñu benn benn match contre Yogo incha bu neexee très bien alors ñu joxante rendez-vous certainement contre Yogo maa ngi remercier ñëpp nag

coach. m'avait dit la dernière fois que ce serait donc une confirmation, mais c'était compliqué, coach Iboussek, ce match avec, bien sûr, l'ASC Yakargi. Quel est ton sentiment par rapport à sa prestation était Vraiment, merci. Oui, Aldo, je suis très heureux di féliciter d'abord ñaari équipe yëpp parce que match bi serré na trop trop trop mais le football loolu la quoi vraiment tay, tay, tay, li ma jàng rek quoi parce que dañ ma mënee 3 buts à 0 première mi-temps bi gis ngeen ni mu démé équipe bi dafa doxul mais bi démé vestiaire ma am ay tout réglage yu ma def def ay changement ñu ñëw ma jouer défense à 3 ma jouer défense à 3 gis nga ci la amé euh penalty ñu démat ma dougal bi deuxième bi égalisation dernière minute. parce que musuma gëm ni équipe bi dana ma gagner sur le plan technique tactique musuma gëm ni buma doron 5 en tant que match bi jéxul man pour man ken gagné wu ma parce que euh, lima jang rek lay tari quoi vraiment boo noo xoolee tey match ni mu demee coach coach gagnant mu coach gagnant là quoi. waaw parce que euh, métti woon na mais alhamdulilah. deux sorties euh, normalement donc deux matchs nuls il te reste encore donc deux autres matchs à jouer. waaw comme ni ma ko waxee woon la la fois passée rek euh, championnat la nec nekk ñu match coupe euh, quatre points sax boo ko amee mun y'a génn yàkkamtiwuma dara bu ma gagner gagné équipe dama koy gagné bu ma gagner gagné dinaa fexe ba du fi jëlee défaite bu ma demee deuxième tour yi nag foofu la liggéey bi mais actuellement ni moom dañuy def dañuy def ndànk-ndànk rek euh, match par match lañ koy préparé comme ni ma ko waxee woon match bi passé na fàtte nañ ko ñu ngi ci suñ beneen match bi nekk suñ kanam la ñuy xaar. alors coach donc bonne chance pour le prochain match incha allah. merci beaucoup Aldo. merci allez merci. macha allah mu nekkoon euh, réaction coach su ASC Espoir. Euh, déggoo am na donc donc euh, waye nak deuxième heure bi dañu amat euh, ki nga xamné modi IC Yego mu neen euh, première sortie on donc con première sortie ic Yego ic Yego on nek IC bo xamné ne si ni c'est la première c'est c'est sa première sortie donc bi 20 h jotee la siffler coup d'envoi bi diggante ic Yego AIC sant mon mu nekkoon deuxième match AIC sant malheureusement deuxième défaite pour AIC sant D'ach ndax AIC Yego moo ko mujjee ñetti bal ci dara AIC Yego nag mom moo moom la ñu njëkk a dugal way AIC sant yàlla ñu donc avant ñu mi ci la AIC Yego égalisé ñu dem ci vestiaire un but partout Ouais, nag ci retour vestiaire yi ci la AIC Yego retrouvé waate filé yi daal di koy dugal ñaari bal match bi daal di 3-1 ñetti bal ci donc, nous avons réaction. Ah. Et maintenant, nous sommes avec le coach Abdou Aziz Job, le coach de l'ASC Coach, ta première sortie a été marque une victoire. Laisse tomber 3 buts à 1. Alors là, c'est carrément une satisfaction pour toi et certainement pour ton groupe. Oui, suis ngi maa ngi maa ngi encouragé waa sant yàlla bu baax a baax a baax xam nga démétré wuñu match ñi la mën a demee rek boo xoolee sama problème bi ñuy avant ñu dugg ci match bi euphorie stade beeg moo leen xaw na jàpp quoi mais bi ñu bi ñu leen dugalee réaction xam nga en deux heures bi ñu réaction si lañ égalisé bi ñuy ci vaisselle li wax boo leen bëggee gañ il faut ngeen teg bal bi jouer am na liggéey entraînement boko ñëwé bayiko def leneen rek di nga gis leneen quoi mais en deuxième temps comprendre lañ lolu si lañ mëna si lañ teg bal bi xam nga jël monopole di ballon bi si lañ dugulé yenen 3 bi quoi euh, waaw. en tout cas première sortie première victoire mais aussi surtout donc la venue avec euh, des supporters laisse tomber parce que tay da nga ñëw ak ganaw gu bari. Mm-hmm, waaw mais non la supporters mom moom kenn mënu leen fay quoi mention spéciale ñom ndax euh, depuis lu mat 1 mois wu suba ngone gu guddeeg bëccëg affaire lañuy nek xam nga xalé jigen jigéen suba ngone gu guddeeg bëccëg ñu ngi dajalé xol nu équipe bi avancé commencé dirigeant yi pareil xam nga mention spécial daal à supporter supporter quoi dirigeant yi moom ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax xam nga ñu continuer ci bi di tamit match par match la ñuy jël match bi jeex na dañuy préparer suñu deuxième match contre Yakar, inshallah. bonne chance donc pour la deuxième sortie. ok merci merci coach. alors euh, on a Sen, Sen, s'il vous plaît. CN, euh, donc euh, les gars, on, prend scène parce qu'effectivement, scène c'est un des dirigeants bien sûr de l'ASC Yego et c'est carrément, euh, carrément aussi donc quelqu'un qui se connaît donc dans ce mouvement donc bien sûr Navetan et surtout parce qu'il est donc de l'Odecave. Alors scène, ta première sortie, donc la première sortie de ton équipe ASC Yego, 3 buts à 1, tu m'avais promis donc une très belle équipe et nous avons vu aussi la prestation bien sûr de très bons joueurs. Mm. Quel est ton sentiment Bon, d'abord, tout d'abord, on rend grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et puis on prie sur le prophète Sayyidina Muhammad Et ce résultat est le fruit euh, vraiment de, de tout un quartier. Donc euh, c'est ce que j'avais dit hier aux jeunes. Je leur ai dit que, comme Yous nous disait, cette soif de victoire, mais non seulement on est soif, mais on a faim de cette victoire. Donc on rend hommage aux coachs, au staff techniques, aux joueurs. Et surtout cette belle mobilisation de tous les de tous les supporters de l'ASC Yogo. Vraiment, aujourd'hui, on a assuré, on est très, très, très fiers de nos joueurs, de nos dirigeants et surtout de nos supporters. Et c'était Maud bien sûr, un des dirigeants de l'ASC Yogo. Merci. Merci, Aldo mi ngi mu réaction coach su Yogo, Yégo dañuy Deglou, réaction coach su Santial, sant yàlla bi mu défaite ci digganteem ak Et nous sommes avec le coach Malangéjou, le coach de l'ASC Sant qui vient euh, de tomber face bien sûr euh, à l'ASC Yégo donc sur le score de 3 buts à 1. Coach, votre deuxième sortie. La première donc c'était une défaite, la deuxième aussi euh, euh, encore une défaite. Alors franchement, quel est ton sentiment par rapport à la prestation de tes joueurs à exactement le reste maintenant donc du tournoi Je déçu, ah, mes joueurs, sincèrement, je suis vraiment déçu. Mais tu sais, c'est normal, parce que tu as l'équipe qui ne s'entraîne même pas. C'est des individualités, que, mais il n'y a pas de collectif. Parce que j'ai une équipe qui ne s'entraîne pas qui vient de Dakar, de Louga, de partout qui vient jouer avec moi, des joueurs qui viennent de partout. Mais c'est un peu difficile parce que tu n'as pas le collectif, tu, ne connais pas tes joueurs. C'est un peu difficile. Tu as que trois joueurs qui s'entraînent, les autres, tu ne sais pas ce qu'ils font. C'est un peu difficile. Le match, après le match, ils rentrent chez eux. J'ai pas un groupe, quoi. J'ai pas un groupe qui, Alors, et là, maintenant, quelle est la solution par rapport à tout cela Parce qu'il vous reste encore deux autres matchs à disputer. Oui, on va, on va, on va gérer ça, essayer de parler avec les gosses qui vont rester pour qu'on va essayer de chercher un groupe pour qu'on s'entraîne ensemble pour avoir rebondi. Parce qu'il faut travailler. Si on ne travaille pas, on n'aura rien. Si on ne travaille pas, on n'aura rien. C'est ça, on a, on a, a ce problème-là. Parce que si vous regardez le match, les scores et le match, c'est un peu, c'est pas, pas coordonné. C'est ça quoi. Merci, coach. merci, merci Aldo. donc mi ngi noonu ami internaute di leen fàttali ne bu leen euh, jaxle ci euh, division yi gars yi ñu ngi koy demande à tout mais dañuy def de retour donc mi ngi noonu ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg incha allah loolu moo jotoon a xew ca

yeneen programme ngeen fas ko ànd ak la télévision la première chaîne digitale du département Kebemer TV dara du leen raw ci nawetaan ak euh, réaction joueurs yi réaction coach yi entraîneurs yi ak supporters yi <laughs> donc dara du leen ci raw ci biir Kebemer TV lepp di ngeen koy am inshallah rabi rabbi en direct en exclusivité donc nak dañ leen di jox rendez-vous ëllëg ba 18h jotee jàppoo guy gi la war a doon waaye bu 20 jotee war a dox ci diggante dëkkandoo ak ay ASC matt gi di leen fàttali ne ay ASC matt gi dafa ñàkkoon première sorteem même ASC guy gi moo daanoon moom tamit première sorteem donc mi ngi noonu loolu moo war a xew ëllëg le euh, trente ca stade docteur Issa Mbaye Samb cërë ngeen jëf si ànd bi ak télévision Kébémer TV donc ñi leen di bu baax di suivre actu à chaque fois donc que vous soyez joueur supporter ou simplement passionné de football Actu Nawetaan est votre source d'information incontournable pour suivre toute l'actualité des tournois communautaires restez connecté, cette saison promet d'être encore plus intense et captivant rejoignez-nous abonnez-vous aimez et partagez Merci beaucoup.